Euh, Ousmane Sonko ak euh, Mame Mbaye Tapale Niang parce que procès bi procès Prodac bi bañ ko waree def mat na léegi presque juróom-ñaari at parce que bin ko fi jiiñee moom Mame Mbaye Niang ni daa randal xaalisu euh, sénégalais yi lu mat fanweer ak fanweeri milliards yu teg dañ ciy bind livre Birahim sekk moo bindoon livre bi tey sax moom ma nga woon ca tribunal ba ñu jëloon ko comme témoin mu waroon a ñëw pour def témoignage moom Mame Mbaye Niang moomu sàcc suñuy milliards ba noppi di porte waate plant heure bi waroon koo fekk ci kaso bi muy taxaw naan day porte plainte ay nit <coughs> loolu nag <coughs> tey gis nañ ni euh, procès ba euh, euh, mujj na ci ni mu mujjee mooy ñu ni léegi dañoo daan Ousmane Sonko ñaari weer yum dul tëdd mu noppi ñu toftal ca Euh, ñaari temeri million xamni euh, ni euh, Ousmane Sonko moko ko fay Mame Mbaye Niang pour damper ko ko <laughs> sàcc milliard ba pare ñu lay damp <laughs> li lu doy war la yow nga sacc milliard mom da soxla ko damp li yor ci milliard day jeex suñuy milliard mu war ko guxi ñi wax naan da koy dañ koy dañ koy damp man lool moma jaaxal ci projet bi naam man japp na ni sonko moom ay nitam xër nañ ci moom xër goo xam ne leer na ma ne moom bu leen nee dajale leen ñaari téeméeri million moom leer na ma ne bala moo mat bala moo mat euh, juróom-benni waxtu ñu dajale ko loolu moom awma ci lu may warante loolu moom jege ñaa lay sonko yi moom bu leen waxee ne dajale leen léegi ñu dajalal ko waaye man dama jàpp ni sàcc lu ëpp suñuy fanweeri milliards ñu ne léegi yow nañ la dàmp non Sénégal man xamuma ban réew la quoi sunu réew mi noonu la fi nekk dafa yéeme quoi mais li am solo mooy man dama am loo xam ne il faut ma ñaawlu ko li ma ciy njëkk a ñaawlu mooy euh, avocat Sonko yi bu ñu ñëwee ci biir procès bi ñu ne ñoom seen client dafa feebar te loolu moom ñëpp gis nañ ko man loolu dinaa ñëwaat ci kanam parce que Sonko ku ko xool sax xam ne sonk mii ak sonk mi ñin ñi xamoon am na changement Sonko wérul man depuis procès Mame Mbaye bi commencé ak léegi ñu koy dugal ci ay oto ko génne yoo xam ne du oto ak mu naan pompe nañ ma ab produit pompe def nañ ma léegi def nañ ma booba ak léegi man sonk mii may gis man xam naa ni wérul te maa ngi koy wax encore jege ñaale sonk yi sonk wérul lu ñu war a tiit nañ tiit ci sonk mii parce que Sonko nii ma ko gisee man wérul état de santé boo ko xoolee xam ne mi ngi dégradé wu jëmmi Ousmane sonk ji mi ngi dégradé wu loolu maa ngi koy wax di ko waxaat encore une fois Sonko wérul maintenant daa war a dem à l'étranger faju ji wërta dem man sama position moo doon dañ ko war a bàyyi mu dem faju ji parce que la santé prime surtout mais man Sonko mii ma gis jàpp naa ne wérul loolu sama xalaati bopp la du ma médecin du ma lenn mais sa mbokk sax da ngay nekk ak moom gis ko xool ko xam ni kii ni meloon ak léegi wuute na Sonko jàpp naa man ni wérul te loolu maa ngi ko seetlu ci weer yu mujj yii surtout biñ ko commencé gis-gisee ak léegi di ko laal di ko yëkkati di ko dugal ci di toj ay vitre otoom di ko jël di dugal ci ay oto boo xam si du otoom ak mu naan moom dañ koo pomp ak ñoom ñu naan noonu leen ko pomp lee lañ ko tuur ak keek ko tuur man boobu bi mu commencé léegi man sama xel dalu ci loolu nag am naa ci droit ni sonk mii ma gis gis naa ci moom ak soppeeku jàpp naa ni wérul léegi nag ay avocat am loolu lañ dem wax tey ca tribunal ba ni sonk wérul daa feebar génne certificat médical jox ko juge bi man li ma comprendreul mooy mais man mosumaa gis ab procès boo dañ fay indi indi certificat médical juge bi ni du ko jël mais xanaa lu mu gàtt gàtt même bu ko dee bu ñu ko dee récuser la partie adverse wala wala procureur bi di ko récuser xanaa daañ jël certificat médical bi daa de renvoyé man de loolu laa xam ci procès bu nit mais daa daa feebar ci ab procès bu mu mën a doon mais boo ko àndee ci kanamu juge bi ci tribunal bi mais dañu jël dañuy jël certificat médical bi buñ ko jëlee bu dee daa am ku ci am lu mu cay wax ak leneen ñu ñu ñu ñu ñu communiquer ko ko buñ ko ko communiquer. bu dee daa moom da ko wóoluwul wala dara mu def contre expertise wala dara man de loolu laa xam loolu aajowul aay pour xam ne noonu la war a demee mais ñu ne ñoom juge bi nee na moom du jël moom du jël euh, certificat médical bi te day retenir la l'affaire man loolu comprendre ma ko franchement je n'y comprends absolument rien beneen bi nag mooy euh, man lu ma comprendre mooy. ñom ñaar gi nga xam ñoo seqoon procès en diffamation bi mam ak Sonko mais mam Mbaye da daa amoon avocat bu euh Europe ab tubaab bu ñewon diko défendre ñu bayiko mu ñew défendre mam bi mi ngi tuddu Olivier Sur wa Olivier Sur mom dañ koy may mu défendre mam Mbaye Niang parce que mam Mbaye Niang moom moo leen Ousmane Sonko am avocat bo xam dañu day constitué bu tuddu Juan Juan Branco Juan Branco nak ñun xam nañ ko muy avocat bu xarañ Juan Branco ñëw moom it ne day defaan Ousmane Sonko mu ñëw aéroport ñu refoulé ko daal koy dugalaat ci euh, vol wutal ko billet ci Royal Air Maroc pour mu jaar Casa Casablanca pour delluwaat France wala léegi ñun suñu réew mi li muy xew duñ ko xoolaat ñun sénégalais mais loolu avocat kay bu ñëw ne day constitué mais kenn mënu koo tere mu constitué ñun ñaata yoon la suñu avocat yi dem France di constitué wu di fa ay nit. ak di dem ci yeneen réew di fa défendre ay nit ñaata yoon la fi ay tubaab ñëw fii di défendre di défendre ay euh, ay sénégalais yoo xam si ñoom dañoo de ñëw constitué wu pour défendre leen kan moo am droit def loolu mais kenn le droit international moo protéger loolu avocat Juan Branco ñëw ni day défendre Ousmane Sonko ñu ne ko doo dugg Sénégal daal di koy delloo utal ko billet pour pour wàññi ko mais loolu fan la tegu lii bu dictature lan la lan la li xew suñ réew mi mais mais mais lii ñun ñun dafa mel ni ñun Sénégal ñun xamuñu ñun ñun eh, li nekk ni ñun sax dafa mel ni ñun nekkuñ di interroger wu ci li ñuy dund actuellement mais lii kenn mosu ko fi def je l'ai comprendre parce que Juan Branco mais c'est un excellent avocat d'abord il est jeune brillant France sax ñemewuñ ko foo xantuma la ak Sénégal parce que moom Juan euh, moom mooy avocat ou gilet jaune Té avocat ou gilet jaune Pour euh, bu xarañ la boo xam France ñëpp gis nañ défendre le dossier des gilets jaunes euh, beneen bi Juan mon moo procès en appel Pour Damien Tarel Hein, moom procès en appel Pour Damien Tarel Damien Tarel euh, bu le 8 juin 2021 mon moo Emmanuel Macron suis mbéj moutar tar ko bi Macron di nuyu public bi mo profito ci euh nelaw ci lex bi bu bu qui baax waaw Macron dañ ko euh, euh, Juan Branco mi nga pour défendre Ousmane Sonko te ñu refoulé ko ne duñ ko défendre Sonko défendre Damien Tarel def ci liggéey bu mucc ayib bo xam ne français yëpp dañoo yému ci mom parce que c'est un avocat très brillant très très brillant motax ñom nak dañ ko ragal lool motax ñu ragalon mu ñew ci procès tapalé bi nga xam avocat yi bo leen dégloo né nañ ya beaucoup d'exceptions de nullité yo xamni mi ngi ci biir procédure bi parce que ñom sen euh, procédure bi dafa bëri ay tapalé nak wax deug yalla wa donc kon lool motax bëggu ñu won avocat bu xarañee ni Juan Branco ñëw fekkee procès bi lool motax ñu refoulé ko comme nous fi Seba mon ami Kemi Seba vraiment réuni mi li fi nek dafa Sénégal le fi nek dafa donc lolu man japp ne jaay doole la je ci ci procès bi comme le euh, verdict bi moy ñaari du ko teud ba nopi mu fay euh, Euh, da koy jox euh, Mame boo xam ni day nekk euh, ñaari téeméeri million ñu débuté nag la parquet parce que bu leen fàtte ni parquet bi dafa duggoon ci biir mbir mi moom yoonam nekku ci nag parce que procès en diffamation boroom xam-xam yépp nee nañ ñaar ñi ko séq rek ñoom la concerné parce que le procureur de la république moom askan wi la fi nekkal kon ci biir askan wi bu ñaar ci ñoom jàppante kenn ki ne sama moroom damaa duural ñoom ñaar ñooy dem ca kanamu juge ba ñu àtte leen yoonu procureur nekku ci waaye bu ngeen fàttali ko procureur da cee dolli woon ñaari mbir yu mu doon toppee Sonko ñu koy wax des chefs d'accusation yu bees yoo xam ne dani dafa saaga dafa saaga beneen bi euh, dafa saaga Mame Mbaye beneen bi mais loolu du Mame Mbaye Niang moo ko toppe Sonko mais mais procureur moo ko toppee Sonko ni dafa saa dafa saaga euh, ba noppi dafa def faux et usage de faux maanaam daa am document bu mu yore boo xam ne faux du document bu ab euh, saaga bi nag ñoom lañ toppee Sonko mooy Sonko dañ ni euh, euh, Mame Mbaye Niang dañ ko épinglé voilà du comme si épinglé saaga la donc injure bi loolu lañ bëgg a wax maanaam que Ousmane Sonko dafa saaga dafa saaga Mame Mbaye waaw parce wax dëgg yàlla. ni nit dafa sàcc suñuy milliard bu dee loolu mooy saaga man xawma lan mooy saaga loolu du saaga mais li am solo mooy procureur yoonam nekku ci diggante Mame Mbaye Niang woon ak Sonko yoonu procureur nekku ci moo tax juge bi le fait que mu débouté le procureur loolu c'est une bonne chose le parquet a été débouté ci lim doon toppee Ousmane Sonko loolu ama am solo la naam parquet sax amaat na du temps pour def appel parce que am na 45 jours selon la loi pour def appel mais bu defee appel man japp na ni jël bi day gëna ñaaw rek bu fekkante ni ñi koy àtte nekk nañ ay juge yo xamni euh juge yu tëdd njaaxaanaay lañ wax deug yalla surtout que sax problème bi ci nara nek moy mom bu défé appel fan lay def appel en tout cas bu dé cour d'appel ka fa nek mënu ko atté parce que euh mom mo topaté won té mëno topaté ba nopi atté parce que ci digënté bi dañ ko fa jël ci fa doon topaté en tant que procureur yóbbu ko ci fa nga mëna atté <laughs> loolu mom Sénégal mais Sénégal li fi xew c'est extraordinaire cest à dire yow mënoo topaté parce que ci tribunal qui top, ak qui saytu ak kii até mënuñoo mënu and manam bu fekkee yow da nga nek juge buy topaté muy le parquet mënatoo ci même question bi nga nek ci juge buy saytu manam instruction mëno tamit ci même dossier bi nek juge bi àtte manam nek ci tribunal ba di àtte nek juge du siège kon nak légui ki nga xamné mo moo topaté ci dossier bi mom bim topaté ba paré dañ ko jëlee ci position bam mu topaté en tant que procureur légui yóbbu ko ci position bo am légui bu dossier bi démé ba yex ci mom mom mokay koy té ci même dossier bi mëno ci top ba nopi àtte ci loolu c'est important ñu leeral ko Sénégalais yi kon ñoom bu ñu bëggee buñ bëggee def appel léegi bu ñu defee appel ku koy àtte ki nekk cour d'appel war koo àtte moom moo toppaate woon te ci droit ci yoon mënoo toppaate ci benn dossier ba mu neex la nga dem àtte ko kon nag jafe-jafe boobu mi ngi seen kaw li leer daal mooy Ousmane Sonko garde na li ñuy tudde son éligibilité Manam, ba léegi candidat en 2024, si le le tribunal ba suis la ñu kon moi information bi ci am solo Ousmane Sonko reste candidat à l'élection présidentielle de 2024. parce que nous avons un dossier qui est ñu fi parce que dossier est déjà yàqu dossier Adji Sarr moom comme na ma ko waxoon ca début ba ba léegi dara du ko dindi dossier boobu kalaate na dil bi setul woon Adji Sarr ci boppam waxal na boppam ni kenn violé ko féete na boor moo tax ñoom sax gis nga kenn waxatu ci parce que xam nañ ni mënatuñ cee wax dossier boobu yàqu na ña doon jàppale Adji Sarr sax boo leen déggee actuellement ñoom ñëpp dañ naan ñoom ñenn ci ñoom réccu nañ luñ ko doon jàppale moom Adji Sarr ci boppam fan yi génn na fi sax ni moom elle en a marre dama bëgg ñu bàyyi waat ko mu dem nekkaat ci dundam dund dundam moom kon sàkkootul lenn dul ñu bàyyi ko mu dellu ci ay mbokkam delluwaat di dund dundam ah man nag jàpp naa ne am na ci droit depuis le début man loolu laay wax dama naan Adji Sarr nañ ko bàyyi mu ñibbi seen kër bu demee toog seen waa kër di lekk mbaxalu saalumam hmm, di euh, lekk euh, wax dëgg yàlla ay daxinam di lekk ay cere cerey séeréeram yu neex ba noppi bu ko mbokkam yi laajee nan la mbir mu demee mu leeral mbir mi ni mu demee bu ko defee mu expliquer sax mbir mi ñan ñoo nekkoon ci ginnaawam ak lépp man jàpp naa ne loolu lu baax la ci dossier bi actuellement mu dellu ci ay mbokkam bu defee waxtaan ak ay xaritam ay bàjjanam ki nijaayam ñi ko ci gën a jege mu leeral leen ñi eh, dossier bi li ci am lépp loolu lépp baaxoon na ngir ëllëg lu mel nii dootu fi amati. kon jàpp naa ne Adji Sarr wax dëgg yàlla loolu mu demandé pour ñu bàyyi ko mu dund dundëp parce que xale la wax na dëgg man d'accord naa ak moom naam ab xale boo xam si wax dëgg yàlla tappalekat la waaye daal li leer mooy dossier bi féete na boor moom it comme na bee féetee boor leneen lu ñu fi jéem a def day gën a ñaawal jël bi olof yi nag dañ ne nii laa defoon day yokk sàgganu buñ gën a yokk sàgganu gi li leer daal mooy dossier tappale la woon comme ni dossier Adji Sarr bi nekk woon dossier tappale juge bi jël na ay responsabilité am àtte na bu ñu bëggee wax dëgg yàlla euh, jàmm ci réew mi nañu teg lépp ci suuf teñ teñ jàll ci leneen jàll ci leneen nag mooy waaye yeewi askan wi ak opposition bi de manière générale parce que man sax dama jàpp ni fii opposition bi yeewi askan wee fi nekk ci opposition boo xoolee sax nguur gi ñeneen ñi lijjantiwu leen

sénégalais ñoo bàyyi Ousmane ñoo ñoo bàyyi euh, Macky Sall euh, fal Ousmane Sonko ci seeni xol képp ku ko bëgg a tere tamit loolu mënta nekk fii ku nekk ci opposition bi tamit defan ne yow dara nga ci doo ci dara parce que man ñu bëri ñu fi nekk ay opposant yoo xam ne tudde seen i bopp opposant ba ndax déclarer seen candidature man déclaré gu ma sama candidature officiellement mais jàpp naa ne su ma ko déclaré ma leen ëpp doole parce que ñooñu mun ñu maa raw man su sonko kese mo meuna raw amul keneen damay wax ni nak meuna ko wax am ño xam dañuy def ni dama koy wax ni rek di sanni mais lima wax ni loolu mo am man suma ma candidat en 2024 wa APR am sen candidat ñeneen ñi nekk yewi askan wi nekk candidat te ma ngi leen ci pousse na nekk candidat parce que le candidat yi di kana bari mo gëna bax ci nguur gi la bon manam candidat bi nguur gi di ngemb kooku la candidat yu bari arrangé wul parce que comme Macky Sall moom mënta doon candidat jàpp naa ne am na droit quand même wut candidat mais candidat bi Macky Sall nar teg kooku moom bu candidat yi baree amul chance kon candidat yi bari baax na kon yeewi askan wi ngeen am lu ma douze candidats wala treize candidats baax na na candidats yi bari waaw man mii incha allah euh, su fekkente ni ñuy bëgg a dajale sama caution euh, confirmé nañ ni dañ koy dajale incha allah bu ñu dindee parrainage parce que man parrainage bu amee du ma bokk. Euh, cour CEDEAO nag dégg naa waxaat na ci ONU aussi waxaat na ci ne Sénégal bi yoon 2024 du ko may mu def parrainage waaw loolu moom nañ ci taxaw ñun ñëpp euh, parrainage wërta am waaw léegi nag bu parrainage amul man incha allah damay doon candidat bu fekkente ni am naa ñu d'accord cotiser caution bi parce que man awma awma caution bi parce que caution bi ay vingt cinq million je lay doon donc euh, man aw ma 25 euh, millions yu may joxe caution mais bu ay sénégalais d'accord rek cotiser 25 millions yi euh, man kon inshallah damay nekk candidat parce que le candidat yi di gëna bari di gëna bax ci candidat bi ëpp doole ci opposition bi kon na candidat yi bari na candidature yi bari man lool la gëm buñu ñu bu ñu bu ñuy def parrainage c'est pour que candidat yi baña bari parce que candidat yi bari arrangé wul parti au pouvoir. bi xam si wala la candidat sortant wala candidat sortant bi ki nga xam moom la ngemb ñoom arrangé wu leen mais opposition bi lu candidat yi di gën a bëri muy gën a baax ci ki ëpp doole ci ñoom loolu nag ñun ñëpp xam nañ kon bu amee nan la yëf yi nar a tëddee comme neex nag nekk candidat man citoyen sénégale laa am naa droit nekk candidat te comme ni ma koy waxee su ma nekkee candidat bari na ñoo xam ne yor nañ fi tur ci politique mais su ma nekkee candidat maa leen di raw ma sax lu may werante kon nak lima ci ciy rek moy opposition bi bu len nelaw enjeu bi ñaar la du ñatt moy ñu am fichier bu baax pour dem ci élection en 2000 2024 fichier bi baaxul dara jaaru ci yoon nañ teg fichier bu baax primo votant yi am voté wuñu won yépp te defal len ne peut pas voter ñepp ñu bàyyi len ñu voté ñi nga xam ne dañoo nekk stock mort bu nekk ci biir fichier bi ñu dindi leen ñi wërta voté yëpp ñu dindi leen zone yi nga xam dañoo def bourrage d'urne ci élection yi ñu génn ñu dem xoolaat zone yooyu yëpp tegaat ko ci yoon parce que dafa am zone yoo xam dara leerul ci fichier bi au niveau national ñu tegaat ko ci yoon ñu càmbar fichier bi ba fichier bi jaar yoon boobu ginnaaw fichier bi jaar yoon ngeen xeex ba ministre de l'intérieur bii fi nekk bañ a organiser élection yi parce que ministre de l'intérieur bii fi nekk dafa far te ku far un un arbitre mënta far arbitre bu far siffler penalty bu penalty amee arbitre bu far bu coup franc amee du ko tiire wala da koy tiire jëmale ko ci ki nga xam ne moo gaañe di ko dimbali kon nag bu ngeen bëggee élection yi mu jaar yoon ministre de l'intérieur bii fi nekk comme dafa far mënta organiser élection bi Ben ministre de l'intérieur sax mënu ko fay organiser parce que ministre de l'intérieur bu ñu fi mën a teg Macky Sall moo koy fal léegi nañ exiger ñoom opposition bi Ben organe indépendant pour organiser l'élection. encore une fois opposition Je vous sais pas koy wax di ko le débat autour de quand moi organiser L'élection, L'élection est beaucoup mise à de l'intérieur organisée. ak mise de l'intérieur bu mu que a Macky Sall parce que l'élection 2024 est un enjeu enjeu nous sommes le président de la république sortant candidat candidat comme des candidat candidat Karim Khalifa Sall euh, Ousmane Sonko euh, Fall euh, Gakou mon ami parce que déclaré une candidature je l'encourage à aller jusqu'au bout également le président Abdoumbaye. Euh, wax dëgg yàlla déclaré na candidature am euh, ak ay euh, Boubacar Camara et cetera ñoom ñëpp déclaré nañ seen candidature na candidature yi bari na mat bu candidature yi baree moo gën ci opposition bi na ñëpp nekk candidat man mi incha allah bu condition yi créé woo damay nekk candidat ci kàttanu yàlla parce que kenn moomul réew mi te am naa droit nekk candidat comme ñëpp léegi problème bi du candidat yi problème yi mooy nañ fexe ba. fichier bi jaar yoon parce que fichier bi baaxul nañ ko xoolaat fichier bi bëri nañ ci nekk ñoo xam ne leen war a dindi bëri na ay affaire yu leerul ci fichier bi fichier bi na jaar yoon bu fichier bi paree nag ñu jël euh, koo xam ñoo xam ni dañ leen di euh, tànn sénégalais yëpp d'accord ne faruñu fenn mu nekk un organe indépendant ñu jébbal leen l'organisation des élections de bout en bout maanaam tout le processus électoral ñu jébbal leen ko ñu organiser ñu élection yu leer en 2024 kenn du sàccal kenn kenn du jàppale kenn bu ko defee sénégalais yi dajaloo ci bureau de vote yi ñu voté ñi ñi ñi ku ci nekk ki nga bëgg a voteel nga vote ko nga voteel ko sénégalais yi tànn kenn bëgg a def seen président en 2024 lii mooy yoon mais suñ fi seetaanee ba dem élection ci fichier bii fichier bi baaxul ñaareel bi mooy bu ñu seetaanee ba ministre de l'intérieur bu Macky sàll tànn organiser élection yi deux vingt 2024 ci kàttan yàlla bu élection yi jàllee daan ko réccu ñoom opposition bi bu mu ko nangu élection yi ministre de l'intérieur bu Macky Sall fal mënu ko organiser fichier bi jaarul yoon nan ko càmbar ñépp ñi ci war a nekk nekk ci ñi ci wër a nekk ñu génn leen ci lii mooy tax ci kàttanu yàlla en 2024 ñu mën a vraiment génn ci jafe-jafe yi ñu nekk ñun Sénégal parce que lin ñuy jaay doole nii Sénégal ñun ñépp la naqari mbedd meeg fep ko waxal mën la li xew senegal ni mus fe xew ñepp am nakar ci ni president Macky Sall yore rew mi buñ ñu bëggee mu saafarawu nag ñun sénégalais ñoo mom rew mi ñun ñoo décidé nan lañ wara doxale sunum rew buñ gisé ni li leen bëgg ñi jité rew mi dañ ci wara fekk ci kon na mbir mi jaar yoon ñu am fichier bu baax ñu am candidat yo xamni ñepp ñu am ni bëgg nañ ci bokk ñu bokk ci ba après nag ñu am nous xam ni nit ñu farul fenn lañ ñu organiser ñu élection en 2024 beaucoup de quatre bu ko sénégalais yi qui kin bëgg a tànn mu nekk président de la république te bu ñëwee moom it lii nga fait ne moom tiré fi ci réew mi mu frère ba jëlee ko fi parce que sénégalais yi sonn nañ sénégalais yi euh, euh, nañ sénégalais yi fébar nañ sénégalais yi. Euh, wax dëgg yàlla am nañ gatché ci ni réew mi di doxé te bëgg nañ mu soppeeku kon li moy lima ma andi woon tey pour ci ak yeen ma ngi leen di sante di leen gërëm wasalaam